même parce que affaire bi du du dimbale rek mais geste la quoi ngay ànd ak nit mu feebar nga Sénégal mhm. bu ñu waxantewul dëgg rek ay fenkat la ñuy doon carrément man du ma toog fii mukk nga laaj ma ma lay wax lu dul dëgg quoi parce que bu boobaa dama ciy am daani yàlla xam nga daani yàlla mhm. man Cheikh Ibra Fall rek laa gëm mhm. du ma toog fi mukk di la fen soloy la ma kenn laa ci gis ku seet si muy aj aj aji abi abi abi waaw moo nekkoon sa sa soxna si wiri wiri waaw góore waay mhm. benn abi jaañ laa gis ku déplacé wu ñëw fekk ma fa ma nekk seet ma bu ko passé ci benn doomu aadama bu ci jóg ku ci taxaw wax xanaa génn di wax di contre mais gisuma ci kenn koo xamante ni jaral naa ko déplacé ñëw xanaa ay wax Saneex seet si na ndax dégg nga wax bu baax mhm. Saneex mhm. gisuma ko loolu du ma ci ñëwaat sax parce que. waaw loolu sax garaawul. parce que xam nga la moom sama rakk la. waaw sama frère la. man dama ko bëgg mu bëgg ma xamante nañu du dëgg loolu erreur la rek mu génn di di ma di ma tontu ak yooyu parce que booba xañ na ni ni ñu interprété li ma wax ak loolu la ñu jaxase rek xañ na ba ba mu génn ñu di wax mais man duma wax kenn di ma tontu man kenn du ma tontu. ku ma tontu rek def musiba parce que euh, du ma koy wax ñu koy tontu parce que li may wax day dëgg boo tegoon kaamil ma dóor ni li may wax day am te bu may wax itam damay waxe sama xel ak sama xol parce que moo taxoon mu demee noonu la ma toogoon di ko wax tey jii nii mënoon na maa toogaat di ko wax parce que loola ba léegi saafara wul buñ ma ko fajalee fajal ma sama saafara baax na buñ ma ko fajalul bu ma kenn rayee ko wax nañ ma bàyyi ma ànd ak suñ borom neexaluma kenn pour mu faj ma ku man defal ku mënul bàyyil yàlla dañu koy sant sëriñ dañu koy sant si ku def ñu sant la deful ñu xam ne defoo waaye mënuñ mënuloo ñu la forcé ñu la da ngay def forcé wu ma kenn ci mu ñëw di ma dimbali ku ma mën a dimbali daal te yàlla tax nga dimbali ma te yàlla tax ku ko mënul bàyyil mais kenn amul droit wala nangam wala bàyyi fa lii wala lii wala nga may recadrer non non kenn du ma recadrer dañ may bàyyi ma wax li ma bëgg a wax ndax day dëgg nañ ko vérifier moo tax bi ma toogee ci ay émission tele nit woote ca naan du dëgg ak da ngay arnaqué ñu former benn waay ruux ko mu ñëw taxaw di wax loo ciy gis après yaay am gàcce yaay rus nit ñi saaga la parce que ki ngay waxal kooku du soxlawul lii xam nga lan la soxla nga ñëw woo ko téléphone xam jàngoroom fan la tool mu won la ay kayit yi mu yor ngeen xool nan lañ def ba mën a saafara problème bi mais du loo xamante ni da war a riir fee rek ñëw yor saw làmmiñ di mbel mbeli di wax du loolu man ab artiste la sénégalais yi bëgg ma du dëgg ma def ci théâtre loo xamante ni benn artiste comédien dafa gu ko ci théâtre ñi ko ñi xam lan mooy comédie nañ dem vérifier loolu te loolu yàlla moom ma ko may du kenn moo ma jàngal théâtre du kenn moo ma formé dugguma ci benn école de formation kenn ma théâtre loolu lu nekk ci man la lu naturel ci man la yàlla rek laa ciy sant santuma ci kenn bu ma amuloon talent duñ ma jël ba ma tàmbalee lañ may arrêté yaa ngi dégg fii boo amul talent doo joué boo amul njariñ ci benn pièce doo doo ci yàgg damaa am njariñ sénégalais yi bëgg ma di ma seetaan di ma consommer tey bu ma la waxee ni la lu ëpp douze millions sénégalais gis naa leen ñu ni yow yaa ñu taxoon di seetaan ku mel artiste bu mel noonu boo ko amee danga koy téye te man sama feebar jafewul jafewul jafewul mooy du xaalis rek laa soxla pour faju dama soxla ay jàppale soxla ñi nga xamante ne que sama ñiti lañ ñu jege ma parce que tey mën na ma benn affaire mën na maa naqar rek tension bi yéeg non non non déggante wuñu parce que tam xam nga nit doo xam lu ne ci xelam quoi nit déggante wuñu parce que euh, xaw ma lu nekk ci xolam ak xelam su dëgg man euh, li ma gën bëgg mooy li ma gëm te bëgg ko mooy man xam na ni duma ko forcer ci dara parce que juruma ko jënduma ko sama ginaar nenu ko yàlla moo ñu boole mosuma ko forcer njàmm rek laa koy ñaanal ba fi may waxee ni maa ngi ñaan yàlla may ko jàmm du dëgg ñoo bokk sama njaboot man ak moom du dëgg man wax naa la ne la yàlla reggal na ma sama xel dal na ci lépp ci àdduna bu ma leeroon ni li may xam li ma xam nii xamoon naa ko avant may génn ci télé bi wax du ma ko def sax parce que am na ñoo xamante ne que génne naa seen rangooñ te bugguma ko woon a génne demoon naa ba mënatumaa génn doxi sama yitte parce que am na ñoo xam ne buñ ma gisee rek seen àdduna di tukki fan yii rek maa ngi dem ci benn déclaration bu benn politicien doon def waxa a wax a ba ma dem fa keroog bi ma ne tëll ci scène bi ñëpp a gën jooy te bugguma loolu man du dëgg man ab comédien laa bu ma sañoon ku ma gis da ngay kontaan bëgg xàppi ree parce que loolu laay liggéeyal loolu laa opté pour liggéey ko bu ma ko mënul ma bàyyi am na ñoo xamante ni seeni link xajul ci ma faju man fajul xajul ci ma ma ma ma am li ma bëgg seeni link rek waxuma la ñoom ñu génn ci seen poos mais gis seen gis seeni nit góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor rek parce que leer na ma ne man ay fukki junne ki cent mille mënu maa faj dégg nga parce que faj moo xam ne day laaj ay visa laaj ay avion ay cinquante mille ak cent mille franc mënut a régler sama problème sama problème ay liñ ko ko mën a régler ndax xam naa man li ma dal xam naa ban niveau la tool xam naa xam naa xam naa xam naa xam naa parce que dem naa ci docteur consulté nañ ma ay yoon yoon jënd naa ay garab ay yoon yoon fu ne fu dugg naa fa pour faju mën naa ko sama bopp balaa maa woo maa man sama jaay sama terrain doon ci faj sama bopp parce que booba jaaxle naa te leer na ma ne tur bi ma am tey bu ma génnee dem ci ni di ko ñaan du ma may Sénégal boo amee tur dañ naan jeexle woo dara waaye yàlla dimbali na ma bañ wax li ma doon fayee ko par weer ndax te nëbb naa ko pendant quatre ans xaw ma cinq ans ko bu ñu waxee rek Baay Faal fayee ko ma ne waaw li ngay liggéey yaa ngi ciy am taraanga ma ne waaw ñu may fay di ko nëbb parce que booba ak tur bi boo ko bëggee boole naan nangam ngañ may fayee da ñàkk fayda dégg baax li ma la noonu la demee nag. man bëgguma sax mu dugg ci sama faj non non non waaw parce que dafa passé na ko waaw lii dafa weesu maanaam dafa am loo xamante ni ko bargoñ ma ngooneem xeel ne la xalab ku ca sonn sa garab moo meññewul ca taatu wax dama dégg wolof ba dictionnaire bi dañ sama bopp ku bokk ci gétt naan ci meew wala nga dëgg ci day nag. c'est barke Cheikh Ibrahima Fall c'est trop tard man élément laa boo xam ne ci moom du woon nii la waroon a demee quoi parce que sama élément la moom non soog amu ci non soog amul soog amul xam nga tey fës yow xañ na xamoo ma mais moom dafa xam képp ku bokk ak man moom xam na ko xam na sama biir xam na sama biti xam na lu ma capable xam na lu ma capable ñooñu bu amee jafe-jafe ci seen biir mën nañ ko régler avant ay caméra dégg nga baax li ma la wax euh, am na loo xam sax bugg du ma ko wax fii mais am na mën nañ ko régler avant kenn di ci jot man avant may bët yi déclenché ak si fii amoon na benn instant ay verre rek lañ ma bindaloon cent cinquante cent soixante quinze mille na war a jënd weer yi rek dem naa ci lépp juróomi nit wax leen ko ñu ne ma dina suba ñu fajar fajal jëndal la weer yi ma génn di leen woo téléphone ñu lank bañ ma jël. ku ma bëgg xam naa ko ku ma bañ xam naa ko. toll naa foo xamante ni tollatuma fu may naattablee ñii samay nit lañ ak ñu dul samay nit ñu dul samay nit ñëpp nga xam ne àddunaa ñu boole woon sew sow wad wadd nañu ba jeex. bu doon sawaraa man la tàkk nañ ba jeex fi mu ne boo ma la waxee boo watul sax ñeneen façon doomu aadama laa xam ñeneen laa am ñu may dimbali ñu bokkutoon ak ñoo xam ne sama carrière ñoom laa ci doon sonnal non parce que nag c'est la vie quoi nattu la nangu naa ko xam naa ne suñ boroom moo ma ko teg moom rek moo ko mën a teg te kenn du ci yor nag daraja ba ma ba ma liwaayo la wala ma saraxu la gisuma fi ne nii kuy am benn daraja ba ñëw man ma di la sukkal wala ma di la raamal wala ma bëgg intérêt ci pour nga dimbali ma teel li nga yor ma féet ak suñ borom foofu laa toll. parce que ñun ñëpp ay dee ba jeex yii yëpp ay jeex oto yi day jeex kër yi jeex immeuble yi jeex ñun ñëpp dem ci bàmmeel sax yi lekkuñu suñu jëf rek moo ñu fay fekk yaa ngi dégg kon amul kenn ko fi.